Senghor ma xam ne nag rax na damitu wàlliwu ndax Amadou Ba mii président ki Sall tab ko ne ko yaa may wuutu moom Amadou Ba du meeting moom Amadou Ba du conférence de presse moom Amadou Ba du boo xam ne defal na ko Sénégalais yi moom Amadou Ba du programme boo xam ne war na joyanti réewum Sénégal Benno Bokk Yaakaar moom bu dul tamante kenn déggu leen ñu wax leneen ci candidature bu Amadou Ba bi mu mel ni Amadou Ba ci boppam dafa jàpp ne présidentielle bi jël na ko ba nuppi fa mu toog daal daanaka jugu fa toog ci ruqam te ne dinaa gagné présidentielle bi lii daal la Amadou Ba nekkee ci réew mi l'observateur naan ko déet Amadou ngay doxal ci suuf de petit palais bee nga xam ni fa la dëkkee moom Amadou Ba woote na fa ak ndaje ni ki démb te mi ngi def kéemtalaay kattanam ngir Alioune Sarr dikkaat ci coalition bi Mary Teuw Niane dikkaat Aly Ngouille Ndiaye dikkaat Mame Boye Diao ak ñeneen daal di dikkaat moom Amadou Ba nag tey jii ma ni la dina génn ci ruqam fas yéene wane boppam ca Tiwaawan meewaan ak Pire critique yéene kaay naan man en tout cas waa Benno Bokk Yaakaar moom mere nañ ko ndax nee ñu lu muy def lu ne Amadou Ba daal boolewu ca kenn l'enquête ko di kon bokk PDS ta loxo sa kaw fi mu toll nii Karim Meïssa Wade akub ñuy waajalit ab congrès boo xam ne moo war a taxawal may sa Wade mu doon seen candidat moom Karim ñu koy xaar diggante Italie France laataa muy teg tànkam fii ci Ndakaaru Abdoulaye Diop député maire ne fi mu ne nii lépp luy yeesal ma ni la parti démocratique sénégalais noppi nañ ci dikku Karim Meïssa Wade dong moo ci de source amel ni ku naan leen Karim day nee nan ko mën nga bokkaat ci élection fallu ci réew mi waaye cell cellu Karim Meïssa Wade gii nag mi ngi tàmbalee tiitalaate parti yëpp ngi mel ni sabaru ñooñu xumbute dagan lool waaye parti démocratique sénégalais dara yëngu fa ndax Karim dikkul kenn ci responsable yi source aané mënta wax ne Karim Meïssa Wade woona ma lii la ma wax cadre libéral bi ne képp ku ko wax ma ne la du dëgg nee na amuñu benn xibaar ci Karim Meïssa Wade xanaa benn mooy keroog ba nga xam ne mu ngi doon jaale Maroc akub askanam ba ci parrainage bii ñu daal di soobu ma ne la Karim Meïssa Wade amul benn waa parti démocratique sénégalais bu mu ci waxal 24 heures yéen kaay naan maan candidat woo candidat candidat ngi nii présidentielle 2024 bi bàyyi leen xel docteur Abdourahmane Diouf candidat la boo xam ne mënee su ko wër ndomb ndax nag Abdourahmane ci boppam nee na mbébétam daal mooy daal di indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi jamono ji ñu ngi koy dund ci réew mi waa grand place naan man beneen candidat ngi nii ab sénégalais la boo xam ne ab entrepreneur la ma nga dëkk ci États-Unis moom Roger Boisiné Sénégal daal laa bëgg teg ci raay ndax nag diplôme ingénierie financière ak science politique la am nekkit koo xam ne bari nay relation ca Amérique Roger Boisiné lépp laa bëgg tegal sama réew ma ni engagement ne dama bëgg a yeesalaat politique ci réew mi rawatina ci dénduk Afrique ba ku ci nekk na xam ne dëgg-dëgg politique lii lay laaj ñu daal di koy doxalee ni mu waree l'indépendant yéen a kaay naan maan waa Sénégal moom dañoo xeeb askan wi ba ku bëgg nekkum président wala lu mu lu toll ci juróom fukk ci doomu aadama di doomu Sénégal jamono jii taxaw nan ne dañuy samp seen dënd ngir jiite ñu te kat bari na ci ñoo xam ne taxaw nañ ni sénégalais yi dañ leen bëgg jiite sénégalais yi def tex tex may ree le point kaay naan man Amadou Ba day kenn réew ko Mohamed Diaité plénipotentiaire bu benn Benno Bokk Yaakaar ca Bunkiling ne xel nangu na Amadou Ba xalaat nangu na Amadou Ba ndax amadu loo ci manti déggit qualité dong lañ ko daal di tabbee Mohamed Diayte ne Amadou mën naa nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ndax boolekat la moom njiital post ba tey ne politique gu émergence def koo téye ci loxo loo ci mënti waxit boo ko séenee xam ne dëgg-dëgg homme d'état la am na yërmaane te mën na taxaw askan wi moo tax muy woo Casamance ngir ñu génn taxawu Amadou Ba le peuple yéene kaay naan man président Macky Sall day ku koy taxaw ndax Sall daal ni ki démb daal dinay kaasalati Afrique man ko def na ci tribune mbootaayu xeet yi laas yéen kaay naan président Macky Sall kay démb dafa doon tàggu waa mbootaayu xeet yi le soleil yéen kaay naan kon tàggatoo xam ne daw na yaram lool réew mi ko dajee naan kon terewul moom président Macky Sall muy dem daal dinay xam le ni Afrique daal mar na te kenn teguñu ko nag kudul njiit yi nga xam ne dañoo am doole mel ni kuy noggatu Afrique Fatou Blondin Diop ci yor yoru yéen kaay naan kon bu njiit yeneen di noggatu Afrique yow président Macky Sall ngay noggatu sa askan ndax nag Sénégalu Macky Sall lenn daal lañ fi mën a wax loo xam ne dox na fi muy ay mandat de dépôt naan man Sénégal faat na Pastef Afrique daal di dekkalaat geneen Pastef fukki parti yoo xam ne ñi ngi ci dénduk Afrique daal di na ñuy taxawal Pastef Africa turbine yéen a kaay naan man Ousmane Sonkoy dem di wili pandé président Macky Sall ca CEDEAO daal di wax nag naqar gu mitti nga xam ne ñi ngi ko koy teg Walf Quotidien naan ko société sénégalaise bi ci boppam moo daal di xaajaloo te dara waralu ko nag lu dul diggante Ousmane Sonko président Macky Sall Abdou Khadre Sanogo ne attention sénégalais yi na ci ñoo xam ne day ay fanatique lañ demeewuñu xel waaye ci boppam la ñuy demee Populi en tout cas bomb bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko war nañ koo tere kalaate ci réew mi te dara du ko tere kalaate lu dul waxtaan ci sunu biir fexe ba Sénégal doon benn say kenn du ko mën a xar ñaar te coow li coow li mooy Ousmane Sonko ci boppam ay mbiram bun ci waxul day Sénégal mën na dugg ci guutaatu moment révélation yéen kaay ne ma en tout cas waa yeewi moom fi mu ne waxuma la xeex ci biti waaye seen biir la ñuy xeexoo lu toll ci fukk ak ñeent ci député yi Khalifa Babacar Sall daañu leen dàqee ci groupe parlementaire bi moom nguudam bu jébbal ab citation Abba Mbaye groupe parlementaire bu yeewi askan wi di amal ay réunion ndaje yoo xam ne seeni ñooñ ñu taxaw Sénégal fekke wuñ ko tribune yéen a kaay nan kon en tout cas Sénégal mi ngi soobu ci guuta goo xam ne kilifa diine yi daal ñu ngi leen di ñaan ci seeni waxtaan ci gàmmu gii ñu waar ndaw ñi wax leen seenu taxawaay ci réew mi waaye tam wax leen seeni sañ-sañ ñoom ndaw ñi lees loo xam ne buñ ko defee Sénégal jëm kanam l'observateur mel ni ku daal man Sénégal ni muy jëmee kanam ak yu ñaaw yi nga xam ne mi ngi ci réew mi yàqante bi tamante bi xamal sa morom lu ñaaw génnee ko day mi ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi